محمد نبينا بنور وادينا من مكة حبيبي نور سطع في المدينة asalaamualeykum wa association Ali ci njiital oustaz Alioune Sall seen commission bi yor wàllu social mooy yëgle di woo soppe am di jàmm yi bis boo xam ne dañ koo jagleel mayam deret ñu jàpp ko samedi le 6 novembre ca hôpital CTO di xamle ne mayam deret bokk na ci ak jaamu yàlla ak dimbali sa mbokkum nit di ci woo képp koo xam ne yaa ngi dégg communiqué bi wala nga bokk ci association Ali Imran wala ngay soppeb oustaz Alioune Sall samdi le 6 novembre ca hôpital CTO di ci woo ñëpp képp koo xam ne yàlla man loo na la ko deret du jaay ca marché ba te it duñ luñ mën a liggéey nit a ko mën a dimbalee mbokkam looloo tax Ali Imran di ci woo jullit yépp di ci woo soppe yëpp ak am di jàmm yi samedi le 6 novembre ca hôpital Citewo insha allahu taala bu ko kenn wuute ka habibi nuru sata fil wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli bokk ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew facebook ak youtube ak pexe mu ngeen def ba dinu seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Ali Imran TV baaxoo na di ànd ak yéen benn samedi ci ñaar yu nekk ci jataay bii nuy bëgg a def te tudde ko al ustaas al ustaas ab jataay la boo xam ne bii onze heures lay tàmbali midi et demi lay jeex al ustaas amul thème boo xam ne bii moom la ñuy dikk wax ca waaye al ustaas soo déggee tur wi xam ne kii seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew moo naan alu ñu ne ko alu bu ne alu ñu ne ko alu benn mu may diw barab sàngam laay woote ñu ne ko lu waral sab woote bu ko defee mu indi li waral ab wooteem ñu mën ca waxante ak moom bu dee laaj la bu muy laaj teñ tane ko ca ñu indil ko ca lañ ca xam bu dee laaj la boo xam ni bii lott nañ ci ñu gàntu ko eh, loolu mooy jataayu ali ustaas kon seenub jataay la sama gaa yu baax yi moo koy àndalit muy laaj ak Pape Doudou ñooy nekk ci caméra bi ak technique bi tey nag ñoo ngi koy def ci teewaayu sunu xarit sunu wóllëre imam Kanji ñaanal ko barke ak tawfiix ak yëngutu yépp yi ci biir Alimran ak yi ci bitti Alimran ñaan borom ma defal ko barke ak tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara kon nag jotaay bi tàmbali na defe naa mokkal ngeen numéro yi ngeen ci woote 88 628 11 00 88. vingt 628 11 00 ci ngeen di woote ànd ak ñun ci jataay bi di Alou Oustaz eh, xam naa bu fekkoon man maa ngi wax Alou Alioune Sall rek laay wax <laughs> Alou Alioune Sall waaye comme gaañee ko bind ñoom ñooy bind Alou ndax eh, turu turu Oustaz léeg-léeg gaa yi noonu ko yokkal ci yëf yi benn muy oroma juñ bëgg a jox nit ki wala muy turu jayeel jay la wooxee la loo doonut <laughs> waaw ndax ustaas xam naa bu dee ci sunum réew taxu ko diis <coughs> waaye boo génnoon dem Égypte ba Soudan buñ na laa ustaas am na lu mag lu muy tekki boo demee al mamlakatul arabi saudiya Makka ak Madina buñ na laa cheikh am na lu muy tekki ba demee ci yeneen dëkk yi bu ñu la docteur am na lu muy tekki ñun nag ci sunum réew ku yor karet ni xale yi ba bi bu wala nga ne ca rajo ma ne xaala ndax la dugg na xaraja génn na rek ñu daal lay teg turu ustaas moo tax bariwul ci sunuy waxtaan ñu ne ki leen di defal waxtaan bi moo di seen mbokk ustaas Alioune Sall ëpp naa wax waaw ëpp naa wax noonu dañuy wax rek ki leen defal waxtaan mooy seen mbokk Alioune Sall ndax Alioune Sall dong nag lan tudd léegi turu ci nit boole nag léeg-léeg nit ki mooy jox orma nit ki wala mu jox orma liggéey bi muy def tax mu ne oustaz looloo tax gaa yi bind ñoom du doog soxna Fat Diallo ñu bind alu teg ca oustaz alu oustaz waaye daal alu Sall allo Alioune Sall et cetera loolu lépp lu ci ma ñëwoon rek daanaka loolu lay tekki kon nag jotaay baa ngi noonu ñu ngi leen di ndokkeel yéen ñëpp ñu koy ànd ak ñun ci biir réew mi ak ci bitim réew tabarakallahu ñaan borom bi mu defal nu barke ak tawfiix ci liggéey bi ba mu gën a yaatu ba du ngeen toogati mukk di xool image bu ngeen naan waa lii nag wala ngeen dégg son bu ngeen naan lii nag yooyu yëpp incha jombul liggéey yaa ngi ci kanam ginnaaw bi ngeen xamee ne liggéey bi du liggéeyub Alioune Sall sallallahu alayhi wa sallam moo santaane woon ab liggéey ndax dafa liggéey fukki at ak ñett ca Makka bëggoon a jubóole nit ñeek seen boroom bëggoon a jubóole nit ñi ak seen moroom bëggoon a jubóole jullit yi ak ñi dul jullit bëggoon nit ñi jubóog seen bakkan bëggoon nit ñi waajal àllaaxira lii rek la bëggaloon nit ñi waa Màkka ne doo ko fi defe bàyyi na sunu bopp mu solo dàllam dem taayif ne yéen nag ñu ne ko jógal fii doo ko fi defe mu yebale xabasa na waa fii nag waa xabasa na ko talu nu la mu ne waa Madina yéen nag ñu gàttandoo ko ndeysaan lu lu sedd xol tala al badru alayna min thaniyatil wadaa daat ne wajaba shukru alayna maa daa lillahi daa ayuha almabuuthu fiina jita bil amri almutaa jita sharafta almadina marhaban yaa xayra daar moom sama mbokk mi nag Oustaz Alioune mooy daaj rajo Dunya rajo Sud FM damay bañ a daaj ci Ali TV yàq marché am <laughs> loolu léeg-léeg ma ko ko yàq marché am ndax euh, Oustaz Alioune Gueye ca cene ba moo daan wax oustaz Cheikh Ahmed Tidiane Gaye yaa ma teree siiw <laughs> mu ne ko yaa ma teree siiw li ma man ci eh, taalif mu ne mu ne ko fàtte naa lépp ndax sa taalif yi ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm oustaz doon wax mu ne ko li ma man ci taalif lépp tax nga ma fàtte ko ndax yow yaa ma teree siiw waaye keroog bi alayhi salaam ne waa Madiyana yéen nag taayif gàntu nañ Habasha gàntu nañ mu dëgmal Madina waaye ku nite kooku xaw ma kañ la ñuy jàng niteem gi kañ lañ koy xam mbokk yi damay introduire waaye maa ngi leen xaar ci 88 628 98 98 jëmb leen a ngi nuy dégloo ko seetaan. Eh, am na ko yëglu kon kenn yëgloogul maa nga ca yoon wa <clears throat> ba mu ne waa Taïf naka mu ne ko un un mu ne naka mu ñu ne ko un un dama ne nite gi na ci moom te bëgg noo jàngaluk nite tax na bi ko waa Madina ayca <clears throat> néewul xëy rek dem déedéet loolu état yeeg daayira yeeg tariqa yeeg ñépp a ko war a jàng ci ci ci ci risalaam gi ba ko waa Madina ne ne ko ay ca <clears throat> mënoon naa gontuñ dem wala mu xëy dem déedéet mu ne leen dégg naa li ngeen wax ana Musab nee leen ko na ñëw ànd ak délégation onze personnes ma recevoir leen ñu wax ma liñ namm lan la allahu bar mu ne leen su ngeen ñëwee dangeen ngeen ma fekk ca jamra ya soo jógee màkk jëm ca jamra ya booy tàmbali dugg jamra yi ci sa tàmmoñ fekk leen ma foofu na fa trois heures du matin fekk ñëpp ma ne li ëpp ci nun fi ne boo wootee réunion trois heures ki njëkk a ñëw trois heures demi lay ñëw bu layee rek nga yërëm ko bu réunion war a jeex dix-huit heures ki mujj a ñëw dix-sept heures quarante-cinq lay ñëw bu jëlee kaddu wax quinze minutes jëlaat kàddu wax ngeen romb dix-huit réunion yi moo tax léegi koo woo réunion ñaar lay jëw bu ñettee mu ne baax na ndax réunion bu yàq programme baaxut alayhi salaatu wasalaam saaba dañ ne ko naaw lu lislaam soxla ci noonu <laughs> imaam Kanji ndaw ndaw laaj bu rëy lu lislaam soxla ci ñun mu ne lu ngeen desal yët leen ko allahu akbar lu lislaam soxla ci ñun mu ne lu ngeen desal rek yët leen ko yasalunaka maa saa yunfiqun la afwa loolu islaam soxla ci leen mu ne lu ngeen desal yët leen ko ndax ku ci nekk ñun day desal Pape Doudou day desal temps laay day desal temps ma damay desal temps kanji desal temps ñu yët ko ñu joxe dépense fay courant ndox ak téléphone desal fukki dërëm yët ko waaw yët ko am fukki kër ak juróom dëkke génn kër dese fukki kër ak ñeent yët ko genn gis nga loolu ci wàllu li ñuy jàngale daawa lu rëy lu rëy la maay sunu borom nee na lu ngeen desal jox leen ma waaw ala kulli xaal mu tàmbali ko waajal nag waajal na ko ñaari at mbaa lu ko jege jóge Màkka dem Madina bi gaa yi ci réunion bi muy dem jàpp ci loxol Abbas ibnu Abdul Muttalib mu ne ko foo jëm mu ne ko damaa am réunion bu siri mu ne ko ha mu ne ko bu bu xatiir jiddan bi bugguma waa Màkka yëg ko bugguma ko bokkul ci diina ji yëg ko mais yow ceddo nga mais sa jikkoy ceddo mayu la ngay nekk la lu yoon nekkul bàyyi mu ne am na kañ dem ci réunion keroog la abbas ibnu abdul mutalib tàmbalee yëg yëg-yëg yi damaa war a dugg ci diini ji ndeysaan keroog la ko tàmbalee yëg ñu ñëw ci réunion bi ana ñu jóge madina ñoo ngi nii ana aboubacar mu ne maa ngi nii ana ali maa ngi nii mu ne présenté leen kii mooy sama baay abbas ibnu abdul muttalib ceddo la bokkul ci diina ji waaye ceddo la ci bokk gi la bokk la ilaha illallah kenn mësu koo gis moo tax xam naa daal alaaji <laughs> abbas sàll ci Louga moo nu xam nee na fii la ñu nekk rek ba dugg biir xabaru li ñuy xam ci yonuti bi mooy garabu mango la ñu ngi toog ci ker gi point loolu kenn mësu koo gis kon li nga xam ne noonu la tàmbalee waaj réunion bi tàmbali <clears throat> mu ne waa Madina wax leen seen xalaat ñu ne ko doonoo bëgg nga jóge Makka ñëw Madina fekk sunu <clears throat> ne su ma ñëwee nag bu soo ñëwee ñu fat la nangam nangam nangam nangam ku ne wax <clears throat> mu ne Abbas jëlal kàddu Abbas ne nii ñu ne ko waaw mu ne ñun de ay mbokkam lañ gëmaguñu ko nag <clears throat> wala sax gëmuñu ko yéen du ngeen ni mbokkam nee ngeen gëm ngeen ko <clears throat> mu war a jóge ci ay mbokkam dem ciy jàmbur su ngeen ko naree wor mbaa ngeen lor ko bàyyi leen nu ko nun ñi ay bokkam ñu wor ko mbaa ñu lor ko am na ko yëglu nee nañu salaamaaleykum allo allo allo déggante gu ñoom mbokk mi allo ñu bàyyi ko mu jëkkandi ko waat tabarakallah bu delsee déggante bi gën fee tane <coughs> euh, abbas wax loolu ne ko nun nooy ay bokkam gëmunu ko yéen ay jàmbur ngeen ci moom bu ko bëggee jële ci biiri bokkam yóbbu ko ci seen biir wor ko bàyyi leen ko ci biir biiri bokkam ay bokkam wor ko ndax wori jaamur bukkut ak bokk sa mbokk bu lay wor am na fu muy yem mais jaamur bu lay wor du am fu muy yem daañu leen wasalaam yonente ba ne nii ne moom te na jël kàddu ñu kàddu gu mu ne ko bàyyi mu ne mu ne ko kàddu yi laa doon doye bàyyi mu ne mu ne ko kàddu yi laa doon doye ndax am na kàddu yoo xam ne nit mënu ko wax ci boppam mu tax sax léeg-léeg nga dégg gone yi di jàngale na yonent bi kenn du wax allahumma salli ala sayyidina kenn du ko wax mu ne diit waay ñu ne kay ndax ba mu koy jàngale keroog waxutoon allahumma salli ala sayyidina ma ne déet loolu kenn du ko wax di foo toll na nii maay seen sang benn la ko ma sax def leen wala faqra tiitaru taxut ana sayyidu bani adam wala faqra kon mënul bët bu set rek mu xëy leen <laughs> maay seen sang du ko mën yooyu ay sew siwaan la yu am solo ci ci ci ci mafhum te nekkul ci mantuuq waa ma dina jëlaat kàddu ne ko nun dun mbokki Moussa <laughs> wala boog bokkuñoo mbokki Moussa mu ne ha ñu ne ko mbokki Moussa dañoo ànd ak Moussa ba ca àll ba ñu jub dëkk boo xam ne ay kabo ya fa dëkk ay gangster mbokki Moussa yi banu Israël ragal ne ko ishab anta wa rabbuka fa qaatilaa inna haahunaa qaa'iduun <laughs> ñoo goree di li leen Moussa defal seen digganteeg Firawna lim def lépp ñu jub dëkk ba na ko fii la ñuy toog bu fekkee da ngaa mën a xare demal ak sa borom ñun fii la ñuy toog bu ama jël na yonent bi ñun duñu la def noonu dañ naan la. asalaamaaleykum waaleykum waaleykum salaam. Oustaz ñu ngi ziar. ñu ngi la koy delloo. Sall maa yaa ngi jàmm. maa ngi ci jàmm. alhamdulilah naka waa foofu yëpp. fooy wootee. allo. allo. fooy wootee. allo. Cheikh Tidiane bu Ibrahima Sall Kaffé. ah. allo. waaw eh, daa mel ni baaxul de. maa ngi lay dégg de. allo. allo waaw. waaw ñu ngi ziar bu baax. fooy wootee. Kaffrine Kaffrine Cheikh Tidiane. Kaffrine Cheikh bisimilah. waaw ñu ngi ziar bu baax. yàlla na ko yàlla nangu. Alamdi ah, Meer Ba mi ngi rafetlu jotaay bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. alhamdulilah di siyaar waa Al Imran yëpp. ñëpp a ngi lay dégg Cheikh. alhamdulilah eh, dañ doon siyaare dañoo gëj a woote ñu ne ñu ne nañ woote siyaare rek ñu jéggalu xanaa. yow da ngaa baax woote bi am na ci solo lool. ah dëgg la dëgg la jërëjëf. jërëjëf Cheikh nuyu ñu waa Kaffrine yëpp. waaw dañu ko dégg incha allah. waaw ndokkuma nag waa Kër Bëlëb. ok jërëjëf. mbokk moom mu seex ci seex Tijaan lay woot lay tudd ma nga fële ca Kaffrine ca sunu mbokk ma euh, monsieur le maire Ablaye Wilane xaw ma nag samp na nënd moom déet euh, xam naa ma nga ca waa <laughs> Benno <laughs> xaw ma nag président dana ko sampam déet ndax dégg naa ku ñu samp yaay sampe waaye daal ma nga Kaffrine euh, sunu mbokk la Ablaye Wilane ci Ali Imran it la bokk nag wax dëgg yàlla ndax événement bu jot nu gis koo gis loxoom événement bu jot nag. gàmmu yeeg màggal yeeg conférence annuelle yeeg ñoom seen yooyu Ablaye Wilane merci am na ko ne ci waaw tubarkalla kon mbokk yi noo ngi ci 11 h ci seen jataay bii di Allo Oustaz ngeen di ko am benn samedi ci ñaari samedi muy tàmbali 11h di jeex mi et demi sunu caméraman di Pape Doudou Euh, sunu techni sunu technicien kon di Pape Doudou sunu caméraman di laay euh, mel na ni dama leen bëgg euh, ngeen may ma rek benn pause bu ndaw bu toll ci quelque secondes Muhammad Nabi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi association Ali Imran ci njiital oustaz Alioune Sall seen commission bi yor wàllu social mooy yëgle di woo soppe am di jàmm yi bis boo xam ne dañ koo jagleel mayem deret ñu jàpp ko samedi le 6 novembre ca hôpital CTO di xamle ni mayem deret bokk na ci ak jaamu yàlla ak dimbali sa mbokkum nit di ci woo képp koo xam ne yaa ngi dégg communiqué bi wala nga bokk ci association Ali Imran wala ngay soppep oustaz Alioune Sall samedi le 6 novembre ci hôpital CTO di ci woo ñëpp képp koo xam ne yàlla man loo na la ko deret du jaay ca marché ba te it duñ luñ mën a liggéey nit a ko mën a dimbalee mbokkam looloo tax Ali di ci woo jullit yëpp di ci woo soppe yëpp ak am di jàmm yi samedi le 6 novembre ca hôpital cité woo insha allahu taala bu ko kenn wuute yaa habibi nuuru sata fil madina alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah jërë ngeen ci seetaan mi ci biir réew mi ak ci bitim réew jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun Alimran TV seen jataay bii di al oustaz di tàmbali 11h di jeex midi et onze heures jot na ba teg ñaar fukki simili ak juróom-ñett noo ngi toll ci lu am solo di taqdim wala di introduire sunu mbokk mi dugg sànq di Cheikh Tidiane nekk ci Kaffrine ci la ñu nekkoon waaye ma tolloon ci sallallahu alayhi wa sallam mi doon jëm mi doon defar nit ñi ak jàngal leen réunion bu rëy boobu nga xam ne moom la amoon a gaañi te amoon ko ca Makka amoon ko ca booy dugg jamra ya bi mu waxee bi mu joxee kàddu ma Madina ñoo njëkk a wax mu jox Abbas ibnu Abdul Muttalib mu wax mu jël kàddu ga euh, moom ci boppam wax li mu wax <clears throat> réunion ba tas comme réunion viclo la kenn fekkiwu ko dañ ko war a nëbbu kenn du ko fekk bokkut ak àdduna tey pénc yi wala rawatina suñ penc mi bu jenn waaye jëloon ci studio bi benn micro boo def enquête te di sénégalais balaa ngoon nga jàpp ko ndax gara garam place boo dem maye fa ataaya walla tàngal waxtaan wa dana la wax ne micro sàngam ba de diwoo ko jël barab sàngam la ko jële sànk na ko piste booba daal leer nañ moo tax ñoom loolu ñu ñu veeye ci bu baax a baax danaay gis ci penc mi benn daayira bu tudd bu tarqiya sunu mbokk ma aatu aatu jaañ defal leen ci formation yu doy waar yoo xam ne foofa la bale mooy mbir mi ki ci bokkut waru ci am sañ-sañu defa ko dindi mbaa wax ak a mbokk yi dundum yonent bi dañ koy jàng dañ koy jàng ah muy leen kon dem leen maa ngi waaj maa ngi préparé maa ngi déglu ndigal <coughs> daan ne leen àndale nag ustaas musab ngeen dellu ñu ànd ak ustaas musab dellu ñu delloo ñu tàmbali nag allasina tabawoo daar wal iman tàmbali koo waajal waaye ma ne keroog ba mu ne tëll ca dëkk ba gone yaag mag ñaag góor ñaag jigéen ña ku am sa bool keroog génne nga ko ku am sa leket génne nga ko waaw <laughs> lu waaye mën génne nga ko ay waxambaane ay jeunes yoo xam ne kenn amu ci trente ans solondoo seen col gu niroo sawar lool ñenn ña wari fas muy feet goo xam ne gu ni rëyee gu ni neexe musul am fenn arrivé yonent bi ci Madina duutul amati mukk ma wax la ko tey sallallahu alayhi sallam ba mu ne tëll ka jiite yëf yi ne ko tala al badru alayna <laughs> ka jiite yëf yi ko tala al badru alayna gaaya awu ko tala al badru alayna gaaya awu ko mu lu tax ñu gis fi shamsu jant bi te néewuñ talaati shamsu wala ashraqati shamsu alayna ñu bàyyi fa jant ba jël albadru moo lu tax wax waxuñu tala al hilaalu alayna <laughs> lu tax waxuñu tala al qamaru alayna te al qamaru ak al hilaalu ak al badru ci misaaniyatu shi'r shi'r al arabi ñoo tolloo misaan baat boo fa dugaloon rek du tax way wi damm talaati shamsu tala badru tala al leylu tala atil xamaru luñ ci waxoon rek mu jub ñu bàyyi fi yëpp ne tala al badru waaw imam kanji al badru mooy bi weer bi tollee ci fukki fan ak juróom wala fukki guddeeg juróom nga xam ne bu ñuy reer lay fenk bu ñuy ndékki lay so lay suux te dana leeral penc mi fépp te du tàng féppay leer te du tàng ñu tuddee yonent bi albadro ñu tuddee yonent bi albadru dana leeral fépp te du tàng waxuma laa muy tàng jir te buñ jëloon jant bi dana leeral nag waaye da koy booleeg tàngoor ku solul dal doo dem te njool màkka leeram gi ñàkk sol dal du la tee mën a dem tala al bëdd ba tax arab ñu mën a wax lañ waaw waaw tala al badru kon euh, onze heures jot na ba teg 34 minutes dañu ñëw ci suñu yëgle bi nga xam ne moo jëm ci wàllu sunu woote bi nga xam ne moom la ñuy woote incha allah le 6 incha allah fas ko yéene woote fële ca CTO tudde ko mayum deret buñ ci noppee incha allah dil soit ci jataay bi noo ngi bàyyi Muhammad nabina bi nuuru wadina min Makka habibi nuuru satafil madina asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa mbokki jullit yi association Ali Imran ci njiital oustaz Alioune Sall seen commission bi yor wàllu social mooy yëgle di woo soppe yi am di jàmm yi bis boo xam ne dañ koo jagleel mayem deret ñu jàpp ko samedi le 6 novembre ca hôpital CTO di xamle ni mayem deret bokk na ci ak jaamu yàlla ak dimbali sa mbokkum nit di ci woo képp koo xam ne yaa ngi dégg communiqué bi wala nga bokk ci association Ali Imran wala ngay soppep oustaz Alioune Sall samedi le 6 novembre ci hôpital CTO di ci woo ñëpp képp koo xam ne yàlla man loo na la ko deret du jaay ca marché ba te it duñ luñ mën a liggéey nit a ko mën a dimbalee mbokkam looloo tax Ali di ci woo jullit yëpp di ci woo soppe yëpp ak am di jàmm yi samedi le 6 novembre ca hôpital cité woo insha allahu taala bu ko kenn wuute yaa habibi nuuru sata fil madina